ku leen a génn def ci dara ñaar ñii. ku sumb hmm. sumbal na wallaay dëgg la. ku leen fay sa bor. Hmm. ku leen fay seen bor. Hmm. ku leen fay seen bor parce que àll si la mii. génn na àllalam def ko ci parti. suba ak ngoon xëy ak suba. kon bu président de la joxee cër bi. ñëpp ci war a jàpp. àllalam da ko ci def mu jëm tàkk ak coono. dëgg la mbayti. ñëpp boo xam def ci parti. dafa ñeexal parti mu war a dëkk bu fay nekk. bi bi ñëw ci parti bi sans condition lañ def ñoom ñaar ñëpp. Mm-hmm. ñëw président de la tey sagal leen jox ñu liste parti bi yëpp sagal maa ngi parti bi di appel ñëpp ku ci ne na nga génn mm-hmm. leen ngir président Macky Sall waaye nga leen ngir ñoom ñaar seen taxaw tam mm-hmm. xam ne président Macky Sall ñun day li nga def Touba yëpp ko def mais département honorable honorable Bayal honorable Baye Alla mëno jé ñak ba ja sanni ay kat kàddu geste bi nga xam honorable def nako ko honorable Baye Alla lo ci lo ci wax. non non jéxal sama l'islam man li ma ciy wax bu bari yalla ñu bi la parti bi parti la. jënduloo na ko ñu koy génn. li mu def nii li ñu soxla mel na ni ne doon wax dëgg obrigado, merci jërëjëf jërëjëf tàmbali incha